xel mu rafet bi nga xamante ni saa yu nekk bu ñu jokkoo yaa ngi ñu ko ci euh, euh, indil di ci indi ay tegtal ndaxte liggéey bi tam miin nga ko euh, jamonoy sëñ Cheikh Mouhamadou Lamine Bara ba léegi lépp loo xamante ni war nga ko taxawee ak lu ko jiitu sax ci li nga xamante ni moom moo doon wàll wa nga féete woon yaa ngi ko doon def waaye bi ñu tàmbalee liggéey beeg léegi Euh, lépp luñ ci jokkoo rek ak fépp fuñ ci toll xalaat yu rafet ak yéene ak jàppale bu mat sëkk nga koy àndeek état bi te loolu nag dara waralu ko lu dul yéene nit ñi yiw ci li nga xamante ni moo jëm ci ñoom jóge ci état bi ci wàllu liggéey jëm ci ñoom fàttali nga léegi euh, ay euh, jéego yu bari yoo xamante ni président de la république def na ko fi bi ci mujj mooy hôpital bi nga xamante ni moom la doon euh, inauguré te sëriñ bi ñëwoon ànd ci ak moom euh, gaaw bi ñu weesu li nga xamante ni nag mooy solos ndaje bi mooy niñ koy waxee euh, dañuy saytu fi dox li li ñu santoon service yi fi ñu toll ak engagement yi nga xamante ni jëloon nañ ko ci ndax ba ñu tàmbalee ba tey ak réunion yi fi jot a jaar yëpp jóge ci sous-préfecture bi dem ba ci région bi ci gouverneur bi ba ba ñu defee réunion ba ñu mujjee def ndakaaru ci ministère de l'intérieur ñu xooloon xayma li nga xamante ni moom la service su état bi waroon a def am ko ci taxawaay jëmale ko ci màggal gi ca booba tamit service bu ci nekk ñu jox la kàddu nga jël ci ay engagement leeral nan nga koy defee ak diir bi nga xamante ni moom nga ko war a defee gouverneur bu région wu Diourbel waroon coordonné lépp ba noppit di ko topp bis bu nekk ngir xool fan lañ ci toll sa sama borom dogal ci diggante bi euh, taw bu bëri sotteeku fi ba juróon euh, mbënd ci yenn quartier yi président jël dogal ni nañ ci dal di taxaw ndax biñ ko saytoo ba xool ko xamoon nañ ni bassin wu Kër Ñang bi li muy jot ci ndox di jóge ci yeneen station de pompage yi nekk ci biir dëkk bi dafa mel ni àttanatu ko woon ba loolu waraloon am dogal bu rëy bu ci jóge woon ngir yàqali bassin bi waaye tamit fexe ba jokkale ko waat ak ñaari bassin yi nga xamante ni ñu ngi Daaru Rahman benn bi sax xañ na di la nekk beneen bi Daaru Rahman ñaari conduite ñu waroon koo teg léegi rek maa ngi ciy waxtaan ak directeur général ONAS bis bu jot dañuy jot rapport ci liggéey bi fan la toll waaye daanaka liggéey bi sotti na ba jàpp nañ ni suba wala ginnaaw suba lu mu gën a lu mu gën a gën a yàgg dinañ mën a taal machine yi nga xamante ni indiwaat nañ ko yu bees dugal ko ci biir bassin bi ngir liggéey bi gën a yéwén loolu mooy li nga xamante ni bëggoon naa ko leeral sëriñ bi di la santaat bu baax ci taxawaay bi waaye tamit di sant sëriñ euh, Serigne Mountakha ndaxte lépp loo xamante ni rek euh, ñi ngi koy liggéey ci dëkk bi mu jóge ci service état bi am nag yombal gu yaato yaato yaato yaatu goo xamante ni yéen a ngi ko ci defal te fu ñu si toll saa yu ñu ci jokkoo léeg-léeg sax xalaati service état bi bu ñëwee da ngeen ñu ci wan loo xamante ni dafa mel ni ak taw feex da ciy dugg. ba tax na duñu mën lu dul gën di sant te fu ñu ci it ñu ngi koy leeral président de la république di ko wax li nga xamante ni yëpp ñu ngi ko ciy dox ci jéego pour bañ a gën a guddal damay euh, jox kàddu gi gouverneur région Diourbel muy góor gi mbay mu leeral ñu li nga xamante ni ci lañ toll fi nga xamante ni ci lañ toll su fekkente ni am na ay laaj wala ay leeral yoo xamante ni tamit war nañ ko laaj wala ñu leerlu ko Euh, am na ay euh, quartier yu mel ni euh, Ngiraneen ak ga ak Ngélému dafa mel ni ndox mi xaw na faa bëri tuuti ba taxoon na su fekkente ni jàppandi na indaale naa directeur de la protection civile nga xam ni moo war a taxaw ñëpp ñoo xamante ni dañu nekk ci lor ba tax su fekkente ni dañu aajo ay tente wala ñu aajo lu mel ni xeetu bâche wala taxaw bi ci war rek. bu soobee yàlla incha allah dinañ xool nu ñu leen taxawoo loolu daal moo doon kàddu yi ma jox euh, gouverneur de la région de Diourbel mu indi leeral ci fi ñu toll ci liggéey bi allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim mbokk Sénégal mbokk Afrique mbokk Europe ak États-Unis lu bees tax judd na ci réewum Sénégal ñeel wàllu tabax loolu lu mu xanaa entreprise TRTP Touba réalisation travaux publics lépp lu ngeen bëgg a tabaxlu moo xam dëkkuwaay villa grand ak moyen standing wala immeuble wala bérébu liggéeyukaay wala juma wala jàkke wala ngeen bëgg a def transformation intérieure ci seen biir kër wala ngeen bëgg changé changer seen xarkanamu kër dama ne mbokk yi TRTP Touba réalisation travaux publics moo ci gaaw moo ci mën te moo ci gën a xarañ ndaxte ay liggéeykatam ay jàmbaar yeen ñi nekk bitim réew wala sax yéen ñi nekk ci biir réew mi njaaxare jeex na am ngeen nag ku leen di tabaxal ci ay plan yi ngeen bëgg jokkoo leen ci ni mu gën a gaawee ak TRTP Touba réalisation travaux publics seen aaju faju te du ngeen sonn te kenn du lubal seen xaalis TRTP su ngeen xoolee seeni maquette yi xool it seen plan architectural yu yaa ngi yii ngeen xam ne ay tabax yu mucc ayib yu ànd ak kaaraange la ñuy defar TRTP Touba réalisation travaux publics noo ngi Dakar cité port kenook juma Masalikul Jinaan lépp lu ngeen bëgg a xam ci TRTP mën ngeen ñu dugg suñu site web www.toubartp.com wala ngeen dem ci Facebook Instagram wala YouTube bu leen neexee it ngeen woote ci téléphone bi di WhatsApp bi itam 77 812 46 13 77 812 46 13 ak TRTP Touba réalisation travaux publics